bi ma ñëwee fekk ko camp ba jotumaa wax ak moom médecin bi laa jot a waxal ak sama soxna mu expliqué ma leen laal daal daal laa ko jotale yow loo doon def mun man dama doon góolu loolu moom am naa ko ci waaw mais ku la gaañ ak no bi demee parce que man sax bi affaire bi amee noonu dama jàpp ne dem naa ba ba bi papaam ñëwee ma ne ko est ce que kii ñi mu doon football sax ay moromam lañ que léeg-léeg gone yi sama classe gi buñ def dara ngoon gi dañuy dem di football la gone parce que gaañ-gaañ bi daal damaa ragal dafa daje ku ko ku kopp doole. am na ci yenn journaliste yi wax ni euh, enquêteurs yi nga xam ne ñoo doon entendre xale bi gaañ nguuda moom waat na ni amul benn contact boo xam ne def na ko moom ba di ko gaañ daal ñu jàpp kon foofu ni xëy na yoon mën naa topp ki gaañ bu nu sukkandikoo ci yenn journaliste yi te yow nee nga fi ñu toll nii nguuda amul benn yoon bu mu la wax nii am na ku ko gaañ kon dafa mel ni ñaari wax dafay am ci kaw yéen topp leen justice wala ñee bu fekkee la ñuy wax am na ku ñuy topp ci justice. waaw ñaari wax yooyu xëy na ngoon a waxuma ko waaye gaañ-gaañ bi am na ndax bi police di def enquête am ba déglu ma déglu xale bi daf ñu ni léegi il faut ñu am ci xale yi mu doon footballal seen version xale yi ñoom te maa ngi leen sant ndax ñu am volonté lañ. ñu daal di ñëw ñett ñëw para santé wane na ñoom fekke woon nañu football bi ndax bokkoon nañu mu déglu leen ba pare leneen nag léegi xale bi mu bi bi bi am mu dajeeg moom da ngeen may ko fexe indil man doon naa taal sama oto sax pour bëgg a ànd ak boy yi dem jëli xale bi xale yi ñu noono bàyyil ñu dem ndax ñun xale bi xam nañ ko loolu du problème ñoom ñoo dem waxtaan na xale bi xale bi ñu ko indee xale bu ndaw la. waaw. xale bu ndaw la ndax xam naa ne 14 ans bu ko amee ca la yam daanaka xamul lu muy wax moom bi mu expliqué action bi da nga xam ne xale bi parewul sax pour gaañ parce que nee na bi action bi amee nguuday góolu moom muy football bi biñ centré bale moom da doon daw pour mën a fexe ba bal bi dugg mais avant avant muy mën a fexe bal bi dugg moom daanoo na moom xale bi léegi nag bi mu daanoo samp na bëti moom mu taxaw nguuda tamit bu mu tëbee pour jàpp bal bi bal bi rëcc na ko mais bi muy wàccaat di daanu ci tànk boobu la daanu. kon oomu booy bi ni mu ñëwee ci force oomu booy bi nag voilà ci oomu booy boobu nag la ngóor si bi mu jógee ci oomu booy bi la dal. moo xar moom moo xam naa ne moo moo moo lu gaañu gaañ bu mu am ci biir. wóom boobu moom bi wàcc bi mu bi mu tëbee da jël bal bi bi muy wàccaat ba daanu ci wóom bi. ci loolu la ko jëlee action bi noonu la deme d'accord bi ñu leen dégloo ba pare ndax euh, yoon dafa tee xale bi fas yéene dem ak moom ci justice wala yéen ay wayjuru la yéen a imposé pour ngeen dem ci justice. non xale bi moom bañ ko dégloo bàyyi nañ ko mu ñibbi ñu itam ba fii may taxaw dafa yow déggaguma benn yoon bu ñu wax ñi ñun dañuy dem ci justice du ma wax du ma wax nag du ñu ca dem. ndax lu ma jege jege jege jege am na ku ma gën a jege ndax baay bi jur ngénte yar dundal mu woppee mu faj yaakaar naa ne moo ma gën a jege donte sama wëllëre la nag te doy naa ko lool ci nguur si kon dégguma benn yoon bu mu waxee ne day dem sisti waaye nag du tax ma ni du dem ndax su ma nee dem nga dem fa yow mun la damay dem ah fen naa su ma la nee dañuy dem nga dem mu ne du dem fenn waaye daal fi ma toog ñuy wax maa yow moom waxaguma ne dajay dem daanaka wax nga sànq ni bi nga xale bi amee juróom-ñaari at lan la ko jox kon mar nan ni euh, daanaka def na luy mat fukki at sa kër. juróom-ñaari at. Uh-huh. juróomi la def ci man maanaam bi mu amee certificat ca village fa la doon jàng bi mu amee certificat lañ ma ko jox daaw la daaw la def troisième daa jàllul war koo defaat ren. maanaam bu ren jeexoon day def cinq ans ci man waaw depuis cinq depuis quatre ans yi ak bii mu ne bii ñu commencé li ma ci xam papaam xamu ko ci. naka ngeen doon dundee ci biir kër gi. non doon dem nag moom macha allah kooku est-ce que ci mën a dugg sax ndax euh, li tax du ci mën a dugg ngóor si te wax naa ñeenti yi ma ko yor wax naa ko papaam nee naa ko li ma jariñ jaruñu la ko du mer taayeelul. doo ko ne defal mu teg ca baat doo ko ne bàyyil mu def ca baat maanaam nit ku nooy la ci gàttal lépp lu may liggéeyu lu kër gi moo ci man sama njaboot ba ci mool yi ma mujj a mool nga xam ne moolewu ma ko ci gar dama ko moolee ca mbedd ma ñu war ko faa roñe di ko indi ci biir kër gi li mu ci roñ sama waa kër roñu ñu ko ci ba ci ndox ma doon yéegal ca kaw ak soof sax lu ci ëpp ma ko yéegal maanaam daal bu nit bu ñu doon wax sero faute ci nit dañ naan zéro faute lenn daal bëgg-bëggam la mooy lii mu jëlee gaañu gaañu ba faatu muy espoir. moom lañ ko mujj denc Thiès wala. déedéet ñu ngi ko denc Ngembe Kër Mataba la ci ci dëkku papaam foofu la. ci fa lañ ko denc. keroog euh, tiis yu metti woon loolu. dëkk ba ñu jox la xale ay parents toog daanaka lu toll ci ay at gisatuñ ko donte doon nafa fa dem mais bariwut woon tànk euh, bi nga ñëwee indi koor bi ànd ak nit ak way juram naka ngeen dunde loolu ak waa métti la mosuma dund lu lu méttee noonu man ci ndax li ci gën a métti mooy jafe-jafe yeex a jot gi ndax ku gaañoo altine treize heures dix minutes la def ci bulletin de décès bi moom la faatu nga di ko topp di ko topp di topp ba talaata dix huit heures nga ciy doog jot loolu yàgg na. ba ñu xëyoon ñëw di di di jaare si ñu ñu ëpp bu ñu bu ñu fukki xaaj dama naan juróom-ñaar moom ñibbi nañu ndax mun ñu koo xaar ndax guddi na li ma ci gën a frappé mooy dëkk ba ñëpp ba ñu ma seenee rek la ñëpp wadd xam ne koor bi agsi na loolu ma gën a frappé bi sama oto bi mu duggee rek jotuma caa jooy mais mujj naa jooy ndax fi ma mujj jooyee mooy bi ñu agsee ba dugal ko ci margo bi ñu andi yaayam ak maamam ji ko yar maamam boo ko joxoon pot soo nguur a ne fi du ko naan boo ko joxoon téeméer nguur a ne fi du ko fas maanaam léppam nguur la ko wax dafa mujj yaayam da yaayam da ko naan yow daal comme yaa jël maam jël yaay banaa laa ngóor bis bu yàlla dogalee muy takk jabar buleer ma sax woo man lu ca war na ko taxaw yow nga def ko ndax nu mu féete woon ak maamam ñu andi maamam ak yaayam ne nañ ko xool bala ñu koo denc bi ko yaayam ak maamam xoolee bi yaayam turne bi cax bopp bi ma lënk ko foofu sama yaram daw moo yóbbu ko ba àgg kër ga sama yaay ji ma jur ñëw kott ma ne ma ay foo jëm moom it daal di yox ah jooy naa jooy naa wax dëgg yàlla jooy na yàlla seede na ko sama yaay musuma gis nit wàcc liggéey mu doo rangoon du doom jum jur du mbokk du xarit yàlla ko dëgërloo dëgëru boppam waaye bi ma jëlee nogay margo ba andi ko ci kër gi sama yaay bi ma kottee ni ma foo jëm tarkalla jooy naa moom wax dëgg yàlla xol fees na waaye nag ma xam ni sunu borom kenn du mën a xëccoog moom li mu namm ci jaamam su ko defee yow mi nga xam ne ab jaam nga comme jaam bi dem da nga ko war a nangu ndax boo ko nanguwul it dem na dem na te mënatoo ko andi te ala kulli haal da ngay fekk kon nangu ko rek. lan ngay wax nag eh, xale yi nga xam ne dañuy faral di daje ti terrain football yi di football lu ni mel am na daara eh, daaru musti bërki démb muy benn xale ay pël yi doon football foofu benn xale bi ñu meroo ba mu cor tànk bi mu ko coree waajur bi amut possibilité yóbbu ko Eh, ci la woote benn waaye mu jox ko téléphone benn ndaw mu woo ab chauffeur mu jël ko bi nu demee nag muy tàggu papaam di ko wax ju daw yaram ba ni mu fàtto hôpital yooyu ñu nemmiku ko fan yi Sénégal lan koy wax xale yi bu nu dajee ci terrain yi di football ñu xam ni football du tegante dina donte accident mën na am à tout moment. waaw dañoo war a xam ne rek football bi taxul ñu dugal leen ci école yi donte nag xew na ci jamono bu ñu ko mënta bañ def ñu koy def. jàppe ko comme fo kenn ku ci nekk ngay sóoraale sa morom pour bañ koo gaañ bu kenn ku ne sóoraale sa morom pour bañ koo gaañ rek gaañante mën naa bañ a am nañu jàpp ni rek école yi moom jàng tax seen parents yi andi leen fi mais pas nag di football ak mbëkkantee ka gaañante déedéet parce que ku ci bëgg sa doom jàll ci football yaakaar naa soo amee moyen école de football am na soo leen fa yóbboo dañ leen jàngal jàngal leen football waaye ñi ëpp ci ñi nekk ci école yi jàng football taxul seen parents yi dugal fa dafa bëgg ñu am xam-xam pour ëllëg ñu bokk ci kenn yi yenu réew mi waaye yóbbu leen fa pour football yóbbu leen pour mbëkkante woon doonte mën a ñàkk nag ah sabiyan sabiyan wala karnabiyan xale moom xale rek lay mën a doon waaye nag ñu sóoraale ne rek football bi fola ñu jàppe ko fa te kenn ku ne di moytu sa morom loolu daal